comme Grégoire ban yéenekaay la ñuy tàmbalee tey. enquête yéenekaay Aïcha la ñuy ubbi jàppal nag ne jamono ji ñuy àddu mbokk yi di teewlu Ousmane Sonko du dem ca guddik ñaar ki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 bile ci woteeg présidentiel lii lee loole nag la ñu enquête yéenekaay di ñu xamal ndaxte nag nee nañ ñu. Mame Mbaye Niang moom génn na ko nag ci bileek course ginnaaw nag procès bi nga xam ne rek boole woon na leen ci coow li ñu duppee affaire Prodac njeexital li nag moom mooy Ousmane Sonko daanaka tribunal bi def ko tegi daan rek gën koo dëggal ci juróom benn weeri kaso yi nga xam ne daal jàppoon nañ ne du ko tëdd te ñu daanoon ko ko rawatina ñaar téeméeri millions yi ndàmpaay yi nga xam ne tamit fësaloon nañ ko ci chambre pénale bu Cour suprême daanaka dëggal na dogal la bu ñu mel bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yu enquête koy layool nag moom jamono ji la mu jàpp rek moom mooy nag dañu war rek xam ne Ousmane Sonko nag mbëbët bi yëpp du woon leneen lu dul fexe ba génne ko ci mu mel ni daal yëf yi dara doxul ci euh, njiital Pastef les Patriotes Sud Quotidien yéenekaay nañu Ousmane Sonko ca biti génne nañu ko bokk na ci nag li nga xam ne daal moom la xëy ne fàng ci xetam bu njëkk njiital ah, li nga xamante ni daal la moom mooy confirmation peine bi la daal démb amal nañu ko dëggal ko bu baax a baax chambre bu njëkk ci wàllu ko Cour suprême moom daanaka tas na tasar géntug Ousmane Sonko ngir yegg ca palais de la République jiite réew ka ah, Sénégal moom Ousmane Sonko ànd naak Mame Mbaye Niang ñu xëy na fàng ci ëttuk las yéenikaay bu ñu koy xayma Mame Mbaye Niang daal moom fi mu nekk ni daal deful leneen dul jël usmaan Sonko daal seppi ko ci listu candidat yi nga xam ne ni war nañu mën a jogante ci coowal lii di présidentielle yotuma 2024 Mame Mbaye Niang am na dëgg am na ndam ci kaw Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci las yéenikaay le témoin quotidien la muy seede tey ji daal moom mooy bu ñu ko xaymaa daal yëf yi gaawoon na lool ci traitement coowal loo xamante ne ni mbiru ko diffamation la bu koy xayma sax yéenekaay bi ci taarixu Sénégal la guléet daal ñu daal gis yëf yoo xam ne bareel nañu ko nu ni mel ba teg Ousmane Sonko ay daan daal di koy condamné bu ñu koy xayma nag loo mel amal nañu ko mu yemook euh, li di kontalu ko parrainage yi nga xam ne daal ñu ngi koy ndar képp ca boru na euh, liggéey bi bu ñu sukkandikoo ci euh, le témoin njaay gato ba saf na kaani loole nag bés bi la jour yéene kaay moom moo ñu koy euh, xamal na ji tey jii ci njëkk bés bi la jour di yéenekaay bu groupe E-Media xëy naka la mu cay wax bokk na ci rek ne Ousmane Sonko moom du mën dem ci lekk woteek présidentielle bu ñu sukkandikoo ci li nga xam moom mooy dogal barote ca boruk cour suprême l'info yéenekaay moom ci xëtam mu njëkk nag nañu Ousmane Sonko ñàkk na lépp kenn du ko mën a sàmp na ni ab candidat cour suprême dëggal na lu ni mel Ousmane Sonko moom juróom benn weeru kaso yu mu warta tëdd la ak ñaar téeméeri millions yoo xam ne daal dana ko fay partie civile mu daal di eh, teg ci boor gi bokk na ci eh, loolee di contrainte d'accord ba ñu ca eh, waxoon verdict éliminatoire nag bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni daal ñoom ñooy ay naataangoo Ousmane Sonko waaye li ci leer ba leer rek moom mooy ay avocat am exception d'inconstitutionnalité daal moo nekkoon li nga xam ne di daal ñoom ñoo nga ko doon layoo na gi ni démb maître Thiam maître Soumaré ñoom nag la ñuy xamal rek mu jamono ji moom mooy ñoom ñi doon layool Ousmane Sonko la ñuy sàkku teguñu ko fenn bokk na ci daal li nga xam ne loolee la ñu cay waxtaanee ñu wax ci coowal li nga xam ne nag moom moo lëmb démb conseil constitutionnel ginnaaw cour suprême candidat ya ñu nga doon teg nag seen ko parenage ku nekk daal di indi ay firnde waaye njombe la ñu fa gis daal bokk na ci la nga xam moom moo tukkee ci Thierno Cissé moom am fit lool daal di rek yóbbu fukk ñett ci député yoo xamante ni kenn xamul fa mu leen a jëlee du ñu député Sénégal bu ñu sukkandikoo ci libération yéene kaay moom Thierno Cissé nag juróom fukki at ñett la am nekk candidat indépendant dem nag la daal di yóbbu liste bi le waaye fa mu mujjee daal moom mooy ci loxoy takk der ya ci kanamu enquêteur dik naka la mu xamle moom mi nga xam ne ab informaticien la rek ci wàllu ko liggéeyam ne na la ñu ko toppee daal moom moo ko daal di def te noppi na rek ngir waxtaan ca chèque ko fanweeri million yi nga xam ne daal joxe na ko ca boru ko CDC caution ba nga yëpp mu ngi ko tiiree ca compte bis ba nga xam ne daal jot na ko am Thierno Cissé moom jàppale ni jamono ji ñuy waxtaan ak yéen moom daanaka teg nañu ko loxo la ñu koy toppee nag bokk na ci rek taxawal ay parrainage yoo xam ne dëggul waaye tamit faux et usage de faux ci wàllu ka mbindu public li di le quotidien le quotidien ca coowal lu ni mel na nag nag di fësal tey ji daal ay xarkanam yoo xamante ni ni seen ak xol neexul bu ñu sukkandikoo ci la ñu ca fësal Aminata Touré Abdoul Mbaye Bassirou Diomaye Faye ñoom daanaka dafa ni daal seen mbir dara leeragu ci ndax daañu dem wala bokk des na ci ñi nga xam ne nii war nañu ko mën a leeral ñoom ñett ñi le daal doublon ya ñoom ñoo leen sonal fàtt leen huit Anta Babacar Ngom cootwér gi jàpp leen ni moom jàll na yëf yi loole nag tax na loxo dar gémmiñ ci pàcc bu bëri ci askanu ko Sénégal la alerte yéeni kaay nañu keneen ku jàll moom mooy Amadou Ba ba moom moomee jàppale nag ni ah, bu ñu koy xayma rek parti bi di Osez l'avenir bu Aïssata Tall Sall ñoom jot nañu ko rek jiital investir ko ngir yóbbu ko ci lii di woteek présidentielle Aïssata Tall Sall ñeme na ah, ci Amadou Ba bu ñu sukkandikoo ci alerte yéenekaay la mu xëy rek dëxëñ ci xatam mu njëkk ci wet gi Khalifa Ababacar Sall moom tamit taxaw na waxtaane programme mi nga xam ne bëgg na ko am ci askanu ko Sénégal bu jiital na ci nag seen jafe-jafe ak lépp loo xam ne bëgg na ko ca Tall Sall mi nga xamante ne ni moom ma ngay xalamal Amadou Ba ca boru ko critique kaay la jamono ji Aïssata Tall Sall nag euh, manko nag ay naataangoom ngir rek jiital candidat mi nga xam ne moom la Macky la daal di tabb la ñu ca bëgg nag bokk na ci rek gën ko dooleel ngir am ndam ci guddi ka ñaar ki fa ak juróom ci weeru euh, février gaynde ak Sénégal ci ëttu les yi ni kaay lañ leen di fekk tey ji ñoom daanaka sax ñoom dara sonalu leen fi ñu toll nii waaye daal terewul am nañu rek a pas-pas ak ngëm-ngëm waaye tamit ndëgër laay gu mot sëkk ngir daal di rek a jëliwaat li nga xamante ni moom mooy Coupe d'Afrique des Nations ca boru ko Côte d'Ivoire jàpp leen ni lu ni mel tax na nag Sadio Mané ki naataangoom ñu ngi rek a ci waxtaay gu métti fi nga xamante ne ni moom mooy ca boru ko Diamniadio la tribune sport moom ci cool lu ni mel nag dellusiwaat na ci li nga xam ne daal moom mooy ndàmpaay gi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 Euh, léegi léegi rek wala bokk euh, ba altine incha allah jaajëfal ko bu baax a baax moom Grégoire Ngom euh, bu ko defee rek dañuy daal di wëyal matinal bi